penalty bi Sadio maane dugal ba tax ñu gañe Égypte jël ci suñ première coupe d'Afrique mooy penalty bi nga xam ni ci la Sadio Mané jotewaat askan wi jeexal itam rangoñ yu bëri yoo xam ni réew mi tuur na ko ndax football Sénégal rek mooy équipe boo xam ni finaalu na ñaari yoon te musul gañe coupe d'Afrique saa yu ñu demee ba ni tay la rek mu yàqu waaye itam doon na penalty boo xam ni Sadio maane ci boppam fay na ci bor ndax moo raté penalty bu njëkk bi ci biir match bi jël beneen bi dugal ko boobu mu dugal nag moo ñuy tax a fàtte penalty yam raté woon contre Kenya ak contre Ouganda ci coupe d'Afrique 2019 ba itam ca quart de finalu Cameroun ba 2017 mu rate ko ñu toog waaye penaltiyam bii dinañu fàttaloo penalti Aliou Cissé ba nga xam ne moom la dooroon rate ko ñu perte finalu ba suñu match bi ak Égypte nag match bi nag équipe bi mën ci Afrique la woon ci taarix Égypte mi ko gagné juróom-ñaari yoon ak équipe bi mën ci Afrique jamono ji di Sénégal mi ko dóor waaye nag ngir ñi bëgg football xam nañ ni moo gagné ñi nga xamante ne ni daan jàpp ci say téere baat xam ne ba génn a football ndax Égypte juróom benn koo gañe looloo taxoon mu am ci yaakaar wéer ci ay pexem yàq match bi yaxeet def ci fanweeri yoon ay fot di lu néew a gis ci football Sadio Mané nag moom penalty boobu mu dugal tax na ba léegi mu dugalal Sénégal fanweeri but doon joueur bi nga xam ni moo masa àgg foofu kenn mësu faa àgg romb Henri Camara keroog bi mu dugalee contre Burkina Faso ca demi-finale ba mooy joueuru sénégalais bi fi man bi àdduna sosoog tey waaye nag ndam li itam ndamal Aliou Cissé la ndax Sadio Mané ci boppam nee na li muy dégg ñu koy yàq Aliou Cissé musul dégg benn entraîneur ci àdduna ñu ko koy yàq tànn Sénégal mi ngi woon ci juróom-benn fukk ak ñeenteelu place ci classement FIFA ci àdduna mu nekkal ko ca ba Sénégal toog ci ñaar fukkeelu place bi ci àdduna te ay at a ngi nii Sénégal moo raw ci Afrique kenn mënu koo dab te loolu day yokk ndax ndam lii ba noppi mooy entraîneur bi fi indi coupe te ñi mu daan ci final bi duñu ay como équipe boo xam ne Mohamed Salah nga ca man ci Afrique jamono ji wala sax ci àdduna bi ak entraîneur boo xam ne entraîneur Real Madrid la woon ak Portugal nekkoon adjoint Sir Alex Ferguson diirub juróomi at muy Carlos Queiroz fukki réew ak ñeent ñoo masoon a gagné coupe bi lu jiitu lii xew dimanche ji Sénégal moo leen mottali fukk ak juróom xeetu turnuwaay yi nag buñ ko fubalee ba noppi kenn ku nekk dana am lu mu tànn ni man lii laa ciy jàpp am na ñoo xam ne juróom-ñett nit ñi ci faatu ci buxante ci stade olombe la ñuy jàpp am ñoo xam ne arbitre bi nga xam ne dafa sifflé woon fin du match quatre-vingt-cinquième minute ndax tàngoor bi moom la jàpp am ñoo xam ni parcours bi Gambie def tem bett ñu bari moom la ñuy jàpp waaye pour ñun Sénégal dana naqare ñu fàtte jamono bi nga xam ne Sadio Mané mbëkkante na góolu Cap-Vert bi ba ñëpp tudd yàlla mu jógaat deg ay bëñam lu mel noonu bu amee li texte yi wax mooy dañ lay laaj yow noo tudd wala nan la sa yaay tudd ba xam yaa ngi fi wala nekkoo fi Sadio Mané bi ñu ko laajee loolu tontuwul daf ne arbitre bi may ma ndox mu may ko ndox mu ne ko match bi foog ñu gañe ko continuer ba dugal bi Sénégal jiitu muy doog daanu nangoo génn lii nga xam ne ay risque la bu dul njàmbaar ak bëgg sa réew lan moo ko doon macha allah